waaw xam nga mbir mu ci nekk day am àpp maanaam mbir mu ci nekk day am àpp ndax ñun yàlla dafa teel def ñu teel a wattu xam-xam xam-xamu lasraar dañ ko teel a wattu ñu bari xam ko ci ñun ba tax na télé yu bari daan ñu proposé pour am ñu ay émission ndax am na ci ñoo xam ne sax euh, bu ñuy def émission ci wàllu mbiru sëriñ yi nga xam ne dañuy naxaate di def ay karamatul ay ni yoo xam ne du dëgg dañu daan ñëw ba ci ñun sax di gëstu yu mel noonu ñu di leen ci leeralal ay yu baree bari waaye nag duñ nangoo woon di dem ci télé yi di feeñ ndax booba dañoo nekkoon ci ab liggéey boo xam ne matagul amuñu woon ndigalul toog ci télé yi amuñu woon ndigalul génn ci ci internet bi wala dara waaye bi nga xam ne liggéey boobu mat na ñu jox ñu ci ndigal euh, lañ fa yéene nag maanaam feeñ ci ci média yeeg fu nekk ñu xam ne maanaam li denc woon maanaam feeñ na. te kenn ku nekk aajo ji fi indi ndax yow da nga yëngu ci wàllum sunguf wala da nga ci wàllum bind kese ak it si daal nga leeral daal ci mbiri ñaan daal bëgg nga leeral ci baax ndax nit nit ñëpp jaaxla nañ te ne ni jafe-jafe yi bari na bëgg nga leeral ñu waaw xam nga maanaam sëriñ bu ci nekk sax bu jàngee jàng mu set mu sell dina jàng ndeyjoor dina jàng càmmooñ mooy dina jàng nuuraaniyu dina jàng yu zulmaani yu loolu mënul ñàkk ci ab sëriñ mu pekk xam-xam boobu ñaari xam-xam yépp mu pekk ko dinañ jëfandikoo sunguf waaye nag alxuraan lañu ëpp lu ñuy jëfandikoo ak ismullahil ansam waaye dinañ jëfandikoo sunguf ci mbir moo xam ne mënut a ñàkk mu ànd ak moom ñu boole ko ak moom waaye nag bariwul ndax yàlla sunu boroom daf ñu ubbi benn façon ubbi ci ci xam-xamu asraar ubbi boo xam ne daanaka li ñu utiliser sunguf du bari ndax aajo ju nit mën a am su suñu ko waxee bañ xool ko ba noppi ba xam ne aajo ju ñu mën a saafara la rek moom danañ ko mën a saafara ci alxuraan ak ismu laahi al du jar ñuy jëfandikoo sunguf ak yu demee noonu. léegi eh, faral di ñaanal yooyu ak ñoom mel ni dégg naa ñu ne yooyu. waaw ñun moom daanaka képp kuy nit rek danañ faral di jëflante ak ñoom boo xoolee sax ñun suñu liggéey li ci ëpp waa Europe la ñu ëpp lu ñu jëflante ñi nekk bitim réew maanaam fii ba Canada dañuy ñuy jëflante ak ñoom am na ay taalibe yoo xam ne ay clients yoo xam ne ay ay congolais lañ Congo la ñuy jóge di ñëw fii dañuy maanaam fu nekk nit dafay jóge di fi ñëw am na ñoo xam ne dañuy déggante ak ñun suñu liggéeyee ba pare maanaam fexe leen ko dugalal maanaam ci ñi yóbbukat yi yóbbu ñu yóbbul leen ko waaye mm, ñu nekk ci bitim réew moom dinañ jëflante ak ñoom ci yu baree baree baree baree bari sax maanaam ci seen mbir yi euh, yi ñuy woo foofu noonu diggante këyit dañ fay soxla ak euh, jafe-jafe yañ fay nekkee yu dem yëpp lañ ci dañ ci jëflante ak ñoom bu baax baax baax. Mhm. mu mel ne dañ fi faral di ñëw lu bari ndax dañuy mel ne wàllum siiw ak wàllum kaaraange ak wàllum nit ñi xam leen bu baax. Mhm. waaw xam nga artistes yi moom daanaka xam na am naa yaakaar sax boo fi toggee tudd dina am ñu la fekk ndax yàlla dogal na bari na ci ñoo xam ne seen seenu départ nga xam ne boobu. xamaguñ leen fii lañ daan ñëw ba tey ñu leen di tudd di leen tudd fu nekk nag ñu dem fu nekk waaw am na ci ñoo xam ne sax seeni seen seeni anniversaire yi ñuy def wala programme yi ñuy def maanaam dat yi man maa leen koy jàppal maa lay wax dat sàngam ngay jëf ngay jël ñu de ñu nga doog koo mën a jël ndax maanaam nit ki fu mu gis njariñam faaw mu nekk fa waaw bari na ci ñoo xam ne it bi ñuy jëflante ak ñoom booba mënuñu woon dara waaye bi ñu mënee dara it dañoo dañoo def liñ tuddee wor kenn gisatu leen waaye taxul ñu woo leen wala ñu topp leen ñoom nag ñu ngi may dégg ndax man képp ku dégg samay wax li may wax ñeme naa ci da du ci dellu ginnaaw benn yoon am na ñoo xam ne bi ñuy jéem fii lañ daan ñëw ñu leen di tetti ak di leen jàppale maanaam ñu toll nii ñu ngi leen di dégg fu nekk te maanaam bi ñu jékkee la ñoo wane ginnaaw waaye taxut mu ñu dabu leen wala ñu leen di woo waaye teewul nag ñoom xam nañ man xam naa ndax ñun yàlla ñu moo ñu boo ñu booleeg nit ñi ñun yàlla nit ñi la ñu booleel maanaam artistes yeeg mbër yeeg ku mën a doon rek maanaam danañ faral di jëflante ak ñoom ci jëflante yu yu set yoo xamante ni bii maanaam bu bu bu del dellu ginnaaw day am ñoom ñooy am di li ñu gis di dellu ginnaaw waaye ñun duñ leen gis di dellu ginnaaw ndax ñun liñ nekk ñeme nañ ci te xam nañ ko bu baax a baax a baax ndax dimbali doomu aadama bi rek maanaam moom mooy suñu himma mooy suñu yittee ndax amul leneen lu luy nekk suñu yittee ndax ki nga xamante ni bii moom gindiku na ci diggante moom ak boroomam moom kooku tiitatu dara te ragalu ko ragalu dara kon li ko desee mooy mooy mu fexee jaamu yàlla jaamu yàlla gi nag mi ngi koy defee ci jaamu yàlla yi maanaam dimbali leen ci seen soxla yi seen soxla yi àddina ak seen i problème yi àddina muy saafara woog ak yeneen ak yeneen ak yeneen waaw fii nag moom daanaka artistes yi sax mooy seen kër daanaka bisu seen ñu ñëw fii ñu baree bari dañ fiy ñëw ñii dañ may seen kër yi waaw ñu jëflante bu baax baax baax sax waaw. mel na tamit wàllum sëy ñi nga xam dañuy bëgg jëkkër ak tamit góor ñi nga xam dañuy bëgg jabar te loolu temps yi ñu jàpp ñu seetlu ne lu bëri ay jafe-jafe la daal mm-hmm. waaw di nga gis ko xam ne dina am moyen lool bëgg soxna waaye du ko mën a am mm-hmm. gis koo xam tamit dina mel noonu war a mel taaru lool waaye tamit mm-hmm. du gis eh, jëkkër yu mel noonu tamit da ci yëngu bu baax waaw ñun moom dinañ loolu dinañ ci yëngu ndax daanaka léegi loolu daa bëri waaw ñi nga xam dañuy bëgg soxna mu jafe leen ngoro guñ dugg mu yàqu ak jigéen ñi nga xam ne ngóor ñi dañuy ñëw wax yow ba noppi du ñëwaat day bari ci jamono ji loolu nit ki tëju dina ko def nit ku tëju loolu dina ko def maanaam nit ku am cat loolu dina ko def nit ku ñu liggéey tamit loolu dina ko def nit tamit dina am rab loolu def ko ko maanaam nit moom yooyu yëpp dina faral di indi yooyu ci nit waaye lu ci mën a am mooy soo déggante ak man maanaam bañ xool sa mbir xam ne maanaam lii mooy sa gàllankoor rab moo la gàllankoor wala cat moo la jàpp wala dañ laa liggéey wala da ngaa tëju lu mu ci mën a doon rek danañ la wax na leen lii mooy sa gàllankoor lii mooy saafara si lii mooy sarax yi nga war a def lii mooy li ñu war a def pour mbir moomu saafaraw te fi mu toll nii maanaam bu dee sax jigéen ji nga xam ne daa bëgg borom kër xam nga jigéen ñi am na ci ñoo xam ne kenn ñëwut ci ñoom bëgg leen maanaam am na ci ñoo xam ne dina am ci ñëw ñu ñëw ci ñoom di leen bëgg waaye ku ñëw ci ñoom bëgg leen ñoom ñoo koy ñooy dàqe waaye ki nga xam ne kenn ñëwut ci moom te mu bëgg góor ñi ñëw ci moom bëgg si ko kooku moom bu ñëwee ci man 45 jours rek ko àppal mu dem sëy moom loolu moom dimbale nañu ci góor gi nga xam dafa bëgg soxna it su dikkee dinañ ko taxaw ba mu am soxna mu am ci du lu yàgg dara den waaw yooyu moom noon noonu lay demee waaw waaw waaw yooyu dinañ ci kii waaw moom it comme li ma la wax bu fekkee ci wàllum doom it parce que ñun lépp lu ñuy dugg dañ koy xool ba noppi ndax nit ki li nga xamante ni bi daf koo gàllankoor faaw nga xam ko ngir mën ko caa taxaw bu dee ki nga xamante ni bi daa bëgg xeeti doom ak yooyu mu jafe ko ci sëyam su dikkee dañuy xool lan moo gàllankoor loola ba mënu ko am bu fekkee xool nañ xam ne kii mbiram mbirum hôpital la dañ la fay orienté parce que ñun seet gi ñuy seet bu fekkee nit ki daa war a dem hôpital dañuy xam ne kii li ko la koy faj bu dee koy faje dañ ko wax ba ci fi mu toll nii maanaam nit sax jigéen di tollu wala ñuy sikki sàkk daa ëmb ak ëmbut man soo dikkee ma wax la diw dafa ëmb wala ëmbut te ci xam-xamu laa ko laa la koy waxee dinaa la wax it maanaam bu fekkee daa ëmb mën la góor lay am wala jigéen lay am bu dee ay seex dinaa la wax seex lay am wala déet mën naa la wax sax doom ji guddi lay juddu wala bëccëg lay juddu mën naa la ko wax lépp ci xam-xamu bidéew laay sukkandiku wax la ko waaw ah, bu fekkente ni bi maanaam ki nga xamante ni bi euh, dafa tool foofu bu bëggee doom it su dikkee noonu lañ noonu noonu lañ koy taxawoo maanaam dañuy xool li ko gàllankoor ba mënut am doom su ko defee ñu mën ko cee taxaw ngir mu am ngir mu am doom. waaw ah, <laughs> waaw wàllu procès yi tamit dañ ciy yëngu ndax yaakaar naa tey rek am na kilifa gu mag gu doon woote ci kanamu sëñ bi sëñ bi toog nga xam ne moom daanaka duñ tàqalikoo am na kilifa gu mag gu fi gu fi woote tey ci wàllu procès yooyu lañ doon waxtaan parce que dañu ciy yëngu maanaam ki nga xam ne dafa am procès bu mag bu muy bëgg ñu jox ko bu ñëwee dinañ ci faral di yëngu waaye loolu nag li ëpp ci yëngu bi mooy xalwatu lañ koy def maanaam ay xalwatu lañ koy dugg ñaanal ko ci yàlla suñu borom su ko defee maanaam mu jot ci procès booba waaw loolu moom dañ ci yëngu bu baax a baax sax ci wàllu procès yi maanaam ci ndax am na ay politiciens yoo xam ne sax dama daan jëflante ñoom ci jamonoy élection bi élection yi waaye ñoom it sax dañ may boole ak ay nit ñoo xam ne dañuy xëccoo ay ay marché yooyu noonu su ko defee ñuy jëflante ñoom ci wàllu googu bu baax a baax baax baax. Hmm. seet euh, wàllu seet moom danañ ko def bu nit ki ñëwee toog danañ ko seetal mu toog mu seetal ko ci kanamam. bu ko neexee it mën naa nekk fa mu nekk woote eh, joxe liñ koy laaj ci wàllu turam ak turam yaayam ak la nga xamante ni bi mooy eh, weexalu seet ga eh, ñu xoolal ko loolu moom foo mën a nekk moo xam nga nekk ci biir réew mi bitim réew boo jokkoog ña nga war a jokkoo rek bu ko defee ñoom danañ jël sa tur jël sa tur yaay ak wax la sart yeeg yëpp su ko defee maanaam bu agsee ci ñun dinañ ko mën a seetal xoolal ko ay mbiram wax ko lépp na mu tëddee lañ ci gis bu fekkee lu ñuy lu ñu war a ñaan it suñ ci mënee ñaan dañ ko wax suñ ci mënta ñaan dañ koy xamal ni ko lii ah, mënuñ ci ñaan xam nga wàllu seet daanaka am na jamono sax dama ko xawoon a bàyyi waaye comme nit ñi wax dëgg yàlla il faut que seen mbir bu lëndëmee ñu ñëw nga leeral la leen ndax am na ci ñoo xam ne du leen sax ñaanal boo dikkee toog dama lay seetal rek bu ma gisee sa mbir xool gàllankoor yi xam ne yow sa mbir kat sarax rek moo ko téye dama naan la demal def sarax nangam ak sarax nangam ak sarax nga def ko sa mbir daal di baax am na ñoo xam ne dañuy dikk fii bëgg bëgg ma jëflante ak man ci wàllu ñaan lu ñu am doole yi jox ma lañ may la ma leen di laaj su boobaatee te dina am sarax bu ma la digal foofu soo ko defee ci jour yooyu da nga ah, maanaam lu toll ne lañ lay lañ lay lañ lay laaj ci ci addiya nga mën koo indi ñu jëflante ak yow loolu danañ koy defal ay nit nit dina ñëw maanaam bëgg a te dooleem aggu fa ñu digal ko sarax boo xam ne bu ko defee maanaam dana jot ci xeeti xeeti xéewal yoo xam ne dana mën a euh, saafara li yenn ci ay bëgg-bëggam waaw waaye nag seet gi moom képp ko wootee rek jaar fi nga war a jaar ndax am na ñoo xam ne ñoo yor wàllu googu euh, numéro yi dinañ ko jox euh, mbokk taalibe yi mu ñëpp am ko su ko defee boo déggante ak moom wax ko sa euh, li nga bëgg rek su ko defee moom dina la wax fi ngay jaar pour mën a jot suñ jëmm bu dee da war a ñëw gisee ak ñun bu fekkente ni bii waroo gisee ak ñun maanaam fa nga nekk dafa sori it buñ la waree seetal danañ la seet wax la lañ gis lépp maanaam. léeg nit ñi dañuy bëgg laa def mu jafe lool loo waral lool maanaam. Ah, xam nga ñun hmm. maanaam euh, bis yi nga xam ne si moom lay nekk Ndakaaru ak yenn bis yi ngay nekk Touba. Hmm. waaw waaye dañuy hmm. ñun xam nga moom ab sëriñ moom sëriñ bu tegu fa mu waru tegu moom xalwatu moom du tàqoo ak moom ak wéeti du tàqoo du tàqale ko ak moom moo tax daanaka boo xoolee ñun suñu liggéey. samedi ak dimanche ak alxamis ñetti bis yooyu rek la ñuy la ñuy liggéey moom la ñuy recevoir nit ñi di waxtaan ak ñoom ci seen i aajo ñi ñu war a jox ay ñaan ñu jox leen ay ñaan yeneen bis yi des yëpp dañ koy wéete suñu borom subhaanahu wa taala ak nekk ci nit mbiri nit ki ndax nit ki nga xam da koy ñaanal euh, xaatim yi ngay liggéey da nga am ñoo xam seen i werd day dem trois jours ñii 4 jours ñii cinq jours kenn ku nekk ak ak ak ak ay werdam ni mu diiree te day day werd yooyu day day posé wu ci bidiwam ndax fa bidiwam bis bu seet biddiw biddiwu nit ki dana feq ñaari yoon nga xool heure yooyu yëpp danga ko ci liggéey moo tax ñaari jot yooyu duñ ko barelee moo tax lu demee ne samedi ak dimanche ak alxamis mooy jeudi bi ci la ñuy faral di recevoir ñi nga xam dañuy jëflante ñoom ci wàllu ñaan yenn yi ci des yëpp nag dañ koy faral di fatu yenn saa yi nag ñu féete Touba yenn saa yi nag ñu nekk fii ci Ndakaaru déedéet man moom fajuma ndoxam siti fajuma maanaam émorite fajuma yooyu yëpp yooyu moom yàlla suñ borom dogal na fojuma ci dara donte gëstu naa xam-xam bi nag xam garab yi waaye loolu du samay domaine ndax man bëgguma lor doomu aadama dafa bëri maanaam ci xeeti e, sunguf yooyu boo koy jëfandikoo pour nga lor ci nit day yomb ndax faw nga maîtriser ko ba pare xam dati sunguf yi ndax sunguf am na ci yoo xam ne warul warul faraan sax ci yow te yooyu yëpp nag maanaam àq ja ci yàlla pour nga def ko it maanaam soo ko mënta matale su boobaa boo ko joxee nit mën na cee loru ñun nag loolu lañ xam moo tax duñ ci duñ ci yëngu ñun daal moom yooyu moom daal nañ ko bàyyee ñeneen ñi rek mbir ay ndoxum si teeg yooyu moom nañ ko bàyyi ñeneen ñi waaw. waaw kon ñu dellu sant yàlla suñu borom subhaanahu wa taala waaw ñaanal ñëpp jàmm réew jullit ñëpp ñu ngi ñaan suñu borom def ci jàmm fépp fu nit nekk di fa yeewoo rek ñu ngi lay ñaanal suñu borom defal la jàmm ak sutura ak tawféex. Euh, te jàmm ak sutura ak tawféex jooju yàlla njëkki ko fii ci suñu réew fii ci Sénégal yàlla dool dolli fi jàmm dolli fi sutura dolli fi tew tawféex ñi nga xam ne yàlla teg na leen ci bopp réew mi yàlla defal leen kattan ak wér ba naal yi ñu naal ngir ngir liggéeyal ko réew mi lépp ñu defee ko nañu ko bëggee te mu bañ am benn jafe-jafe bañ am benn coow euh, loolu ñu ngi koy ñaan di ñaanal sëñ Muntaxa ba Basiir mu gën fi yàgg te ak wér lool ak sama sëriñ suñu daam atta ak mboolem kilifa diine yi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi ndax réew mi moo xam ne bu yàlla dimbali rek da nga xam ne mbirang fii euh, ñu ngi sant bu baax mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekk fii ñun di ànd ak ñun liggéey bi saa su nekk nga xam ne duñ duñ duñ dellu ginnaaw duñ duñ joxat duñ def dara bis bu nekk ñu ngi ci ñu ngi ci dëgmal yàlla ak ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak liggéeyal Sëriñ Tuubaa ànd ci ak ñun ñoom ñu ngi leen di sant bu baax baax baax lu ci mel ne waa daayira ahlul badar euh, di soldaar yi ñoom ñëpp tamit ñu ngi leen di sant te di leen gërëm te di leen ñaanal bu baax taxawaay bi gën a yokku ak euh, wax dëgg yàlla Tawfekh Production sant nañ bu baax seen taxawaay seen liggéey rafet na bu baax baax baax